Euh, la commune parce que yeneen communes yi ni ñuy góorgóorloo ba flambé bi jotu ci am parce que quand même euh, lolu problème la sensibilisation bi commune bi waran porter envers les populations lolu lolu def ñu ko raison yooyu sax ci walu Covid bi taxna na ba tey parcelle euh, nit ñi ñoo ngi waxtaan force politique yi ñu nek ci majorité ñu nek ci pouvoir bi ñu nek opposition ñu ne nañ and ba mu maire bi parce que dañu gis ni nous, euh, ngi waxtaan ak nous. ñu nekkoon euh, ñu jàpp ni bu sincère loyal majorité bi ñu gis ni président Macky Sall à l'Assemblée nationale si ñu contre le ministre révocation en tant que maire dàq assemblée nationale euh, Pape Diop ak pouvoir yi ko pouvoir de signature mu mu ak fi ak fi mu jaar ak Khalifa Sall fi mu jaar ak Karim wad de l'agence du concret fi mu jaar ak Ablaye wad ak teranga yim ko jox yeb ñun ñu japp ni ñoñu def ko lool jox ko lool le président Macky Sall tay bu démé tay ba jox ay responsabilité ñun ñu nek ci majorité bi nekkoon ak Macky ci ba mu méttee amul ñu confiance ci mom raison yoy quand même motax tay non nous appelons quand même à tous les passeurs là xamuma ndax dafa wax président Macky ne je vais je vais venir dans l'APR ba mu jox ko parce que loolu leneen lu ñu war a laajte la léegi nag ñun ñi nga xam ni euh, dañu àndoon ak président Macky Sall ba fi mu toll ni amuñu confiance ci loolu et fi ñu nekk ni dañuy def appel à toutes les forces vives des Parcelles Assainies majorité bi pouvoir euh, opposition bi société civile bi ñëpp ñu teel leen parce que ci loolu la nekk ñoo ngi waxtaan ñun ñëpp ñoo ngi waxtaan pour quand même li fa nekk ñu jëlee ko et nous demandons quand même au président Macky Sall que si dans cette affaire là que bu mu ko soutenir na toog mu seetaan te mu parce que dans ce dans ce cas là ci li ñuy jëmee nii parcelle moo primé si lépp loo xam ni dañ koy xëccoo ci wàllu réew mi donc parcelle quand même non parcelle amul parcelle amul benn réalisation parcelle li fi jot am suut état bi moo ko defoon su wàdd li ñu fa def tuuti président mag moo ko def mais commune bi quand même jot ko def benn réalisation kooku yaakaar nañ te jàppal nañu ni président du ko porté moo ngi wax ni moom candidat président mais yaakaar naa ni Macky Sall bi ma xam Moussa Sy ak fi mu jaar ak moom ci assemblée ba mu ko fay dàq ñu reba ko mbay Ndiaye ndax ko ay complot dàq si seloo ndax ay complot kooku bokkoon ci loolu ci kañ ki nga xam ne moom la waa PDS doon ngem naan ko attaqué diw je pense que fi ñu toll nii Macky Sall war na xam ni warul am confiance ci man li ma jàpp mooy fi mu toll nii nekkuñu si crise politique crise sanitaire lañ nekk si li ñu war a nekk mooy doole ji nga xam ni ak lépp loo xam ne Sénégal war na ko def dañ ko war a jël teg ko pour régler problème cris sanitaire bii ñu nekk nii. mais la politique quand même Sénégal a une crise politique gouvernement d'union nationale quand même politiciens qui ont euh, intérêt pour cela, mais je pense que ce mi est. la la parce que crise crise sanitaire crise mondiale épidémie bu la crise euh, gouvernement d'union nationale ça fait 30 ans et je continuais régulièrement à le fréquenter même si dama ko doon seeti ndax soxnaan sim su ndaw sim yor man naa nee na maa ko ko may ndey Fatou jaxete donc Badara sama xarit la sama mag la sama confident la sama lepp la nit ku bax ku généreux ku meuna bolé ay bok ku meuna bolé ay nit je ne lui connais pas d'ennemi vraiment mën ligéyam lepp mu def ko ci jaamu euh ba paré def ko ci euh, lépp ci teggin euh, loolu daal euh, Moustapha Sonan xamee nañ ko ci loolu mu nekkoon jullit akkan nekk nit ku baax nga xam ni li fi jot a xew yëpp ci wàllu état bana lim ci xaw mu liggéey ci lu bare bari ci réew mi kon tey Sénégal moo ñàkk nit ku baax. dañu ñëw ci levée de corps professeur Moustapha Souran levée du corps nag. soo ci ñëwee da ngay rendre dernier hommage ki yàlla boole loon di nga ko ñaanal te yàlla tax alors euh, te ñu bëri tamit ñi nga xam ni seen jot dafa manqué ci la ñuy ñëw pour rendre ko dernier hommage ñaanal ko yàlla yërëm ko. Alioune Badara Niang daf ñu jàngal ñu ndaw yi euh, surtout ci ànd ci wàllu politique ci wàllu fidélité daf ñu won ni. Euh, soo leen àndee ak ay nit ci wàllu euh, politique dinañ leen digal lu ne dinañ leen proposer lu ne mais saa su ne ca fa ngeen nekk na ngeen ci fidèle na ngeen loyal ci ki nga xam ne moom ngeen nekkal yooyu tettal daal euh, ñun bi ñu nekkee xale ba nit ñu màggee yëpp xam nañu relation yi nga xam ne amoon na ko ak président Abdoulaye Wade ba mu méttee. professeur Soura li tax ñu ñu taxaw ko fii ci ñëw ci en terme ci levée du corps am fu ñu koy jébale boromam.

ñun def ñun dañ ko yoreel njukkal boo xam ne li ñu ko mënal rek mooy bis bi nga xam ne lañ koy jébal borom ñu ñëw taxaw ànd ak moom jé ak moom ba fu muy tëdd ñaan yàlla yàlla ko xaaree ko àjjana donc moom fierté la daal pour Sénégal fierté la bu Afrique la sama tour tout l'université yëpp koy jaale Sénégal di ko jaale njabootam ku sëñ Saliou fonkoon bëgg ko la moom it mu bëgg ko lool suran daal fa la taalibe murit yam ñun moo ne woon jàngkat tubaab la mais yoruloon ci jikkoy tubaab dara taalibe murit la woon jullit la waaw cee bokk nag mu jëm du fa doon gan de waaw parce que fa la bokk.